Lansana ba lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoo ko rek bokki internet di ñu dugg ci waxtaan bi. waaw auzu billah bismillah inna wali yàlla asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu képp kuy dundee làmb képp koo xam ne yaa ngi gëm sport maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee bu baax nag waaw di xaar question yi ñëw ñu mën cee tontu benn par benn. tey li ñu war ñu a waxtaanee mooy fan yi actualité yi xew ci làmb lu ñu mel ne combat Siteu ak Tapha Tine Boy bi war a bëri bii di ñëw incha waaw loolu dama ci euh, sant Balla Gaye di ci sant Modou di wax message bu foor la parce que gis nga nit ki li ñu naan waroo mujjee puso bi mu réer lu am solo la tey Balla Gaye euh, li mu doon li mu buggoon ci làmb am na ko mu nekk roi des arènes Modou li mu buggoon ci làmb am na ko mu nekk roi de arènes ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk téye na titre roi des arènes kon man li may wax mooy euh, dafa am exemple boo xam ne ñoom moom la ñuy joxe pour seen rakk yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw wala seen morom yi nga xam ne naam eggaguñ fa eggaguñ sax ñoom fi ñu egg mm-hmm. dafa am message bu foor bu ñuy joxe mm-hmm. waaw ay temps yaakaar naa ne mm-hmm. euh, Balla Gaye Modou dafa mel ni maanaam euh, derby maanaam fu ñu tase coow day am wala dara mais ñu ngi ciy remercier Aziz Ndiaye waaw moom it euh, wax dëgg na yàlla kenn demul mu des parce que tamit tey di ci remercier tamit Modou Lo ah. waaw parce que gàcce ngaalama Modou Lo mënoon ne tey euh, Aziz Ndiaye moom mooy euh, nitu Balla Gaye mhm. moom mooy lépp Balla Gaye mhm. kon su ma woowee ci lu mel nii duma dem mhm. mais Modou moom it duñ ko ciy remercier mais Aziz Ndiaye moom it gàcce ngaalama parce que nit ki duñ naan euh, ku ku ku boolewul rek yaa tàqale te wax dëgg na yàlla Aziz Ndiaye def na geste bu rafet def na geste noble mooy bool na leen mhm. waaw di wax ne euh, ci wàllu publicité boobu noonu mhm. mais lu rafet la mhm. parce que tamit tey ñoom ñaar ku ci nekk loo am yóbbu sa kër moom moo la tax a jug kon tey euh, Balla su ko Aziz woowee woo Modou pour ñu def publicité lu mel ni benn tee benn ataaya mais loolu dafa doon geste bu rafet a rafet maanaam lii nag dafa jaadu mbëri jàngat ci dafa jaadu mbëri jàngat ci Balla Gaye mosoon na fi am problème ak ak euh, ak euh, Modou Lo mhm. ba Abdoulaye Wade moo leen mujjee woo pour maanaam pour di leen jubóole mhm. kon yaaxaar naa ne lii mhm. mbër yu mbër yu ndaw yi fi nekk yëpp war du ma mbër yu ndaw parce que kenn ndawul mais mbër yi fi nekk yëpp li exemple la boo xam ne ñu mag ñi joxe nañ ko parce que tamit mag du du ci âge du ci âge tey ay Balla Gaye Modou Lo ñooñu man mën naa ne maa leen mag mais mag du ci aas mais ñoom tey ñoom la fi yàlla teg kon ñoom duñu naan mbër yu mag yi comprendre nga man loolu laa gëm kon wax dëgg na yàlla lii exemple la ci mbër mbër bu mu mënti doon ñu xool seen mag yi ñoom Balla Gaye ñoom Modou xiiro xiiroo beeg ngaayoo bi fi doon am seen diggante xam nañ ne lii sport la sport li ko tax a jug mooy mooy lu yor puso di ñaw mooy luy boole mais pas luy tàqale tey Balla Gaye euh, franchement dama ko ciy jaajëfal di si jaajëfal Modou Lo di wax ne franchement xam nga lii nag yal na yàlla def mu sax yal na yàlla def mu sax mu gën a continuer dara xam nga combat loolu egguñu si combat lii problème de sponsor problème de publicité la problème de sponsor la tey bés bu combat bi demee ba jege carrément Balla Gaye ni mu toogee ak Modou Lo ñuy attaqué di naan non noonu la koy eh, isolé tuuti ànd ak Ama rek ñëpp xam nañ ne Balla Gaye mooy Ama Ama mooy Balla Gaye mais lii problème de gagne-pain la problème de maanaam euh, publicité la problème de ku ci nekk li nga yóbbu sa kër la parce que tamit defuñu ko ci nen waaw ku ku xam Aziz Ndiaye ak tabem xam ne ku ñëw woo Modou Lo Balla Gaye teg leen ne leen ngeen bokku naan ataaya ngeen bokk def lii mais loolu dina am nu mu fa demee kon man loolu laa gis quoi kon daal wax dëgg na yàlla loolu moom ak combat bi sa diamétralement opposé Balla Gaye ba ma ko gisee mu jugee euh, France wàcc ci aéroport bi journaliste si jël ko. gis naa ne euh, Balla Gaye ba woon. changé na parce que man bokk naa ak moom écrit man maa ko yóbbu ba muy daan Yékini maa ko maa ko yóbbu ba muy daan Yékini waaw ba muy bëri ak bu njëkk ba tamit maa ko yóbbu waaw gis naa ne Balla Gaye am na changement bu nekk ci moom parce que tamit adversaire am gisuma ko kon ci Balla Gaye laay mën a wax waaye Modou Lo mi nga wax tamit gis naa ne euh, moom it mu ngi mu ngi mu ngi ci forme li tax ma ne la mu ngi ci forme gis naa ko physiquement mais maanaam tamit jëwam tamit rafet na li tax jëwam rafet mooy euh, cent pour cent bi nga xam ne moom la waa parcelle def mooy cent pour cent authentique ah man de li ma gis laay wax mooy cent pour cent authentique parce que ñoom du ñoo doon lu tolloog 20 tanoor ñu tëju ci benn kër. sol ay euh, euh, ay loisir yoo xam ne moom la ñuy sol di entraîner suñu paree duñ koy fóot suñu paree moom la ñuy amul kii bii laa soloon amul kii bii laa soloon mais loolu confiance boobu ñoom ñu amante seen biir loolu maanaam loolu moom mooy euh, moom mooy cent pour cent pour man comprendre nga ñoom ñëpp wóolante nañ ñoom ñëpp ñu ngi ànd ay mbëri fa nekk ñoom franc góor a soog xam nga garga de xam nga papa saw ñoom ñëpp franchement soo leen gisee da xam ne carrément ñii ñu ngi ci topp ñu ngi taxaw waaw hivernal bi du ñoo entraîné ba mel ni ñu war a mel. franchement man ñoom ñaar ñëpp si forme laa leen gis. quoi Balla Gaye ak Modou ñëpp ñu ngi si forme. beneen bi des mooy combat Tapha Tine Boy Niang dima man nag euh, combat boobu dama ci amul sens parce que li tax awma ci sens mooy seen amul benn action bu ma si jot a seetaan du entraînement wu Tapha du entraînement wu Boy Niang du open pressu tafaatin Tapha Tine du open press su ñoom ñaar ñëpp jotuma ci saan par des fois daal damay jot a gis si euh, internet bi bàkku Tapha Tapha Tine comprendre nga yooyu laa si jot a gis mais sax mën naa ne sax du egg mais daal di wax ne daal euh, làmb la boo xam ne euh, ku juub daanu bu kenn naagu ñoom ñaar Tapha bu mu naagu Boy Niang bu mu naagu li tax mooy Tapha dafa am fu mu jugee. fan la jugee ci Yékini Junior la jóge mm-hmm. avant moo jugee ci Yékini Junior ci Ama la jugee mm-hmm. mu dëgër lool ci moom mm-hmm. ba mu jógee ci Ama dafa dëgër lool ci moom kenn nangu koo jël maanaam du ma mbëri duñ koo ragal waaye tamit ku koy jël da nga koy jël ndax risque kenn nangu koo jël du mbëri fi nekk yëpp nag du ma ne mbër bu ndaw wala mbër bu mag ñëpp kenn nangu koo jël yàlla def nag Yékini Junior moom it ak ngorom ak njàmbaaram ne damay jël Tapha ba mu ko jëlee li ci xew-xew ci tafaatin yàlla may ko ndam mais nag tafaatin tey nekkaat na ci beneen dynamique kon tey ngal la bu mu ko yàq na xam ne tey su ma daanuwaatee ci euh, ci ci ci ci Boy Niang ah loolu moom mooy xanaa naa dellu tool yi dem bay ji kenn dootuma jël ama daf ma daan ma toog lu toll deux wala trois ans yoo xam ne kenn nangu maa jël Boy ñaa ñëw jaaraat sama kaw kon moom na dem bay ji te xam ne dafa war a bàyyi làmb waaw kon maanaam ay ñoom Balla Gaye ay ñoom Bombardier dootu ci jot kenn kenn du ko nangoo jël waaw ci cadre ci ci ci ci ah, booy Tapha Tine moom loolu laa ci loolu laa ci sànni quoi waaw. ci ba yan risque la am ci combat bi. waaw Boy Niang risque bu mu am mooy euh, moom it euh, dafa am dafa am fu mu jugee dafa jugee ci combat moom ak Lac de Guiers mu metti ci moom yàlla may ko ci ndam yàlla may ndam Lac ndam mais du wëlbit gang ndam la par point waaw mais tamit yàlla def na tey euh, Boy Niang comme combat bi daf dafa demee noonu nit ñi ne Boy Niang dafa tële pour bëreeg luur yi te Boy Niang maanaam bii maanaam stage la combat bi estage la dafa war a jóge fii pour mën a am Balla maa ngi dégg ay rumeur su daanoo fii nii est-ce que dina dina bëreeg Balla Gaye parce que lu mel noonu xewoon na fi Eumeu Sène amoon na combat ak Yékini am combat ak Modou yàlla bu mu defee Modou Lo daan ko Yékini dafa delloo avance parce que dafa ne carrément comme Modou Lo daan na ko man mënatuma bëri ak moom waaw. kon tey euh, Boy Niang combat bi maanaam charge bi dafa diis lool ci moom mu diisee Tapha Tine moom it la diisee ci moom mooy que ne tey Boy Niang tey am na combat moom ak Tapha Tine bientôt léegi ñu léegi ñu bëri mais tamit Balla Gaye mu ngi xaar di ubbi bëtam tey su booy Niang daanee rek combat mook Balla Gaye day gën a confirmer mais su fekkente ne tey Balla Gaye doo euh, Tapha Tine da koo daan combat boobu moom. Balla Gaye du ko jël waaw du ñuy delloo avance bi loolu laa gis li ma gis nag mooy ci biir si wàllu combat bi. waaw si si wàllu combat dina doon lu grand parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ba euh, xeexkat nga ku gis tafaatin euh, combat mook Bombardier maanaam dangay tax rib moom it mu dóor ko ba arbitre ko téye ñoo téye ñoo ñoo nangu Bombardier ci loxom waaw léegi nag tey ki nga xam ne moom mooy Boy Niang moom it yàlla def na ba mu nekk à bas âge la commencé jàng boxe kon combat bi su amul triché su amul triché combat bu neex lay doon combat boo xam ne ñoom ñaar ku ci nekk da ngay joxe ku ci nekk da ngay joxe li nga am waaw franchement.